Idrissa Seck mooy doon candidat parti Rewmi atum 2024 la bu ñu sukkandikoo ci i rajo information bi ni mel nag booba léegi war naa mat semaine ñu koy euh, déggandeel ñuy jox ay sources daal ne Idrissa Seck dafay nekk candidat partem dañu koy élire waaye nag euh, di woon loo xam ne nag comme mu ñu woon lu ñu ci leer lool moo taxoon bëgguñu ci woon dee xuus information yoo xam daal daan nañ war nañ ko jot mel na kon i dëggal nañ ko tey suba itam am na séminaire boo xam ne parti réew mi dañ koy amal tey dajale mboolem fort maanaam ñu nekk ay kàngam ci parti eh, bi nga xam ne moo di parti réew mi ngir waxtaane avenir parti bi ak ndax waaw wala Idrissa Seck dina candidat wala bu ñu rajo kon Idrissa Seck day nekk candidat atum 2024 moom mooy nekk candidat bu parti réew mi di loo xam ne nag bu ñu moytuwut moo nar a yàq ànd bi dox ci diggante président Macky Sall ak président Idrissa ah, Seck